boobu. waaw comme ni ma ko waxee après midi bi moom euh, Gabriel Dollé Gabriel Dollé moom moo yore lépp luy demoon ci antidopage ci ia 2 moom la ñu doon interroger pendant quatre heures d'horloge ñu ngi ko doon interroger di ko pour mu expliquer euh, euh, situation bi nu mu demee moom nag mun nañ ne dafa muyee français nu ñu ne dafa muyee Lamine Diack parce que nee na Lamine Diack moo ko oo nekk fu mu toll nii dañu am problème xaalis dama bëgg léegi nga traité ka réussi ak sutura nga sutura nga traité ko ak sutura ndax bëgguma mu am scandale parce que bu amee scandale sponsor yi dañuy daw mu ne nag moom Lamine Diack daf ko ne léegi suspension yi dinañ leen suspendre sax mais de façon officieuse dañuy xaar ba Jeux olympiques yi romb ñu doog leen suspendre mu ne moom nangu na euh, deal boobu entre guillemets mais benn condition la ci teg mooy que athlète russe yooyu bu ñu bokk ci Jeux olympiques mais mu ne lu ko décevoir mooy que gis na ñeenti athlète russe bokk ci Jeux olympiques yi loolu moo tax mu ne dañ ko wor nee na nag euh, moom si intérêt supérieur yi daal yi de à deux rek la doon la doon doxe loolu moo tax mu nangu def bil yooyu mais lu ko lu mu gën déplorer mooy que ñun jël xaalis si nit ñi ci la ko juge bi ne mais yooyu jot nga jël xaalis bi ndax Massata jàkk Euh, euh, recevoir na la jox na la enveloppe cinquante mille euros mu ne waaw Masada Diack def ma oo ci hôtelam ma ñëw mu jox ma enveloppe cinquante mille euros waaye man dama yaakaar ni enveloppe boobu sponsor yi ñoo kontaan ñu jox ñu xaalis boobu mais musuma yaakaar ni xaalis corruption la mu ne tey fu mu nekk nii dama rëccu lu tax ma jël xaalis boobu William Bourdon moom kenn la ci avocat Lamine Diack bu ñu ko laajee moom dafa ne wax yu euh, Gabriel Dollé wax dugalul Lamine Diack parce que ñoom dinañ ko wone ci procès bi fu mu nekk nii suba moom procès bi du am mercredi lañ koy commencé. Euh, Cheikh Sidou. oui est-ce que lu jëm ci euh, maanaam ñeneen ñooñu nga xamante ni tamit euh, bokkoon nañu ci tuuma yi ñu ne am na ñoo xamante ni jotuñu woon teew ci àtte tey bi est-ce que loolu lu am la. tout à fait te comme li amoon janvier moo am te aussi ñetti nit ñoo présenté mooy Lamine Diack. Habib Cissé ak Gabriel Dollé yeneen yi moom ñëwuñu mangook yeneen yi ñëwuñu euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, Cheikh Sidou euh, Silla doon ñu rek jottali xibaar boobu ca Paris ni ñu ko waxee ak procès bu Lamine Diack jiite woon I2AF wàllu la ci àdduna bi ak tuuma yooyu tegu woon ci ndoddom ci fàttali wàllu ger la waaye tamit weexal xaalis nee nañ jëmale ci coowal boo xamante ni doppage la ñu jiiñ ko ay athlètes russe athlètes russe yooyu nag nee nañ sax ñenn ñi daal booy xool. procès tey bi teewuñu fa Ibou Diouf moo dikkaat ñun euh, ci li xewoon na. mu bokk ci procès yi gën a siiw ci lépp lu laale wallu tàggat yaram ci àdduna bi fédération internationale d'athlétisme fu ñu fa doon tudd ay kilifa ci gannaaw ay mbuxum yu ñu njort ne rek ñàkkul am na ci bokk na ci ñooñee doomu Sénégal bii di Lamine Diack ñu ko doon tudd rek ci ay mbiru guerre yoo xamante ne. nemmeeka nañ ko te ñun doon doxalee dossier yi foofee ca fédération internationale d'athlétisme bokk na ci loole nag ni ñu def ba jébbal waa Rio foofee ca Brésil ñu amal Jeux olympiques 2016 ak Tokyo 2020 Russie nag ñu ne tamit loxoom laale na rek ci yooyu la mbir ndaxte bëri na ay atletam yu ñu njortoon ne rek dañu doppewu maanaam jëfandikoo yeneen jumtuwaay yu leen doon may ñu gën a xarañ lool ki fi nekkoon meeru ndakaaru nag ñu ne rek jot na xaalis bu takku gannaaw ay athlètes russes yi nga xam ne dañu doppewu woon ñu def kem kàttan ngir loolee bañ a feeñ ñu fexe tamit ba ñu ñëwaat ci compétition yi ñu ne nag loolu sax am na lu luñ ci ñameeku ci Jeux olympiques yu ñu amaloon atum 2012 foofee ca Londres président Lamine Diack am na juróom ñett fukki atak ak juróom ñaar ci dimanche bi ñu weesu kooke nag mosul nangu benn yoon liñ koy tuumaal ndaxte nee na mosu ci laale te loxoom dina def kem kàttan beddu ci mos a tilim kooke nag Lamine jàkk ñu ne mbir mi dafa yënguwaatoon gannaaw ki nga xamante ne mooy marathonien bi di Lilia Shubukova gannaaw bañ ko tegee ab daan gannaaw rek buñ ne dafa jëfandikoo yooyu la produit moom nag da doon sàkku ci kilifa yooyu ñu joxaat ko ndàmpaay loolu sax bokk na ci li gën a tax dossier bi ñu ne am na yu bëri yu ci yees loole nag liñ doon bàkk tamit ci ki nga xamante ne mooy Lamine Diack ñu ne dafa fexe ba ay jegeñaaleem bénéficié wu ci contrat sponsor yoo xamante ne rek lu ci bëri de ci lor fédération internationale d'athlétisme ndax liñ ci waroon am jotuñu sax xaaj bi ci loole nag leneen lu ñuy sàkku rek mooy avocat yi nga xam ne ñooy layool kii di Lamine Diack gën a Sénégal gën a taxaw ci boobu boobule dossier comme ni ko waa Russie di defee ndax taxawu nañ seen président fédération ba woon athlétisme ak ki nekkoon entraîneur national ñoom ñëpp ñu leen di tudd ci boobule mbir bu fii ci réew mi nag doomam bii di Massata jaag moom tudd nañ ko ci dossier bi waaye ba léegi demagul benn yoon ca Paris ngook ñu koy jaajëfal euh, Ibou Diouf euh, Hissène Habré ni ngeen ko xamee euh, démb mu dellu rek ca kaso bu Cap Manuel bi mu nekkoon gannaaw nag ñaari weer yoo xamante ne mayoon nañ ko mu dellu rek ca këram bu ñu sukkandikoo nag ñi seen xam-xam màcc ci wàlluk yoon nee nañ loole lu nekk la jaadu na sax nag booy xool ndax gis nañu ay avocat moom Hissène Habré ñu doon sàkku rek daal ñu fexe rek kon ba daal di indiwaat xoolaat yi fii ma gën ko mayaatub àpp waaye bu professeur euh, Samba Thiam moom nee na amul benn charte boo xamante ni euh, tey ñoom avocat yu Hissène Habré li ñuy sàkk mën nañ caa sukkandiku ñu teewlu ko ci micro Mohamed Samb. dañ ko mayoon période bi nga xam ne mën na toog këram. lu ko waral nag mooy Covid 19. lii moo waral ñu ne yowkaay kaay mën nga dem sa kër toog foofu ah ci ki su su ay santé moo tax ñu waral ko def léegi jeex na dafa war a delluwaat dañ ko condamné à perpétuité foofu la war fi mu delluwaat foofu la war a nekk donc fu mu ne nii day day day subir peine bi nga xam ne dañ ko tegoon ci kawam moo tax nag condition ñëwaatal nekkaat fi nga nekkoon balaa nga may laaj naa renouveler xaw na jaar yoon leneen lii tamit est-ce que da nga war a toog ba waxtu nangam beneen waxtu loolu daal euh, yaakaaruma moo woon a dool li nga xam ne dañ ci war a sukkandiku war nañu mën a may ñu ay avocam delluwaat bindaat ne li tar li waroon ngeen def li ba léegi mu ngi fii mu ngi gën a sax jaaxal nit ñi Euh, ñu àddu rek euh, ci beneen procès boo xamante ne tey la ñu ko jàppoon amal waaye dàq nañu ko ba fukki fan ak juróom euh, ci weeru juin muy procès en appel bu Thione moom Thione Seck moomu ci fàttali rek moom moom it ñu doon ko rek tuumaal lu soxal wàllug xaalis ak weexal parquet général bi nag moom moo daal di rek kon taxaw tey ci ñu fexe rek kon ba daal di koy kon dàq ba bépp procès naam sax ay avocat nag gis nañu ne. Eh, ñi ngi doon sàkku daal ñu indiwaat eh, loo xamante ne ay yeesal la eh, ci procès boobu la am na ñu lànkoon sax ne duñu ko amal waaye parquet bi mujj na nangu kon ñu daal di dàkk procès boobu ni ko ay avocat am moom moom coon Seck ñu wax ci beneen mbir ñeel wàlluk yoon ca diwaanu cees la ak plus tribunal bu flagrant délit ba fa nekk nag lu soxal wàllu àtte ba nag tey gis nañu ni ci ay visio conférence la ñu koy jaarale rek ngir mën àtte nag ñi nga xamante def leen ginnaaw li ko waral bokk na nag ci jamono yi mbas mi ñu ne sax booy xool nii la war a demee ndax lu soxal wàllu xarala yi mën nañ caa jaarale tey jilee ba àtte képp koo xamante ne bëgg nañu laa àtte ci tribunal Cheikh Anta fii ci tribunal ginnaaw lu jëm ci wàllu feebar bi di coronavirus tax ñu indi coppite ci ni ñuy àttee. balaa bi wàcc na ci àdduna bi comme ni ko ñëpp dundee noonu lañ dundee ci Thiès euh, dañu mujj. dogal ni audience yi dañ ko war a bàyyi euh, nit ñi ñu leen jëlee ca kaso yee di leen indi pour ñu àtte leen bon cabinet d'instruction itam gis na ni am nañ ñu war a di indi pour entendre leen mais dañoo feebar te seen feebar day wàllee am na ci sax ku nga xam ne birki dem ba ñu ko war a indi dafa dafa am tuberculose te médecin yi euh, wax nañ ni mënagul jaxasoo nit ñi ñu demee noonu tam il faut ñu régler ko ak télé télé audience bi kii atte day toog ci prison ba ci benn salle bu bu nga xam ni directeur prison bi moo ko aménagé télévision ba mu ñuy xool ñun avocat yi ñu toog si banc avocat yi di xool président ak ses collègues collégialité bi ndax ñetti ñetti magistrat ñooy atte président bi ak ñaari assesseur am procureur bi toog fële moom tam bu di ko gis greffier bi toog bu di ko gis di gis avocat bu ñu woowee benn affaire euh, gardien bi wax waa ji ni ko ñëwal toog mu toog di ñu xool ñun ñëpp ñu commencé di wax ak moom comme bu nekkoon fii ci biir salle bi alabar daanaka dossier yu bëri nag lëj mën nañu ko ñu ci bëri nag àtte nañ leen avocat yi de nee na amuñu benn jafe-jafe daanaka ñi nga xamante ni sax ñi ngi ci kaso bi ak avocat yi ñoom ñëpp rafetlu nañ mbir mi ni mu tëddee. jàppale nañu justiciable yi ndax nekk ci kaso ba ñu téye la flagrant délit nga war fa am ay weer. te atte la bu ñu amee moyen atte la atte bu gaaw comme situation normale mais loolu sant yàlla la ñun avocat wu amuñu problème ak magistrat yi ay fonctionnaire la ñu nga xam ni ñu ngi liggéey seen liggéey. loolee tax avocat yi nekk fii ci Thiès rafetlu lool liggéey yi nga xamante ni président tribunal bi di mu Mamadou Diouf def na ko ànd ak juge procureur yi. ma ngoog loolu ñu def ko rek ci jamono ji nga xamante ne nag ñu ngi euh, toll ci mbas mi euh, ci réew mi tolluwaay boobu sax bu ñu ci sukkandiku juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent euh, ci doomu aadama ñoo am jàngoroy mbas mi bisu tey ji ci junni ak fukki test yoo xamante ne def nañu ko juróom-ñett ak juróom nag di cas contact maanaam ñu jege lañu ñu ko am ñaax ay importé lañu dañ ko fay indi juróom-ñeent yi nag bokk ci wàllante googu ñu xamul Pikine Sacré-Cœur Bentali HLM 5 Fass Colobane Yoff Yoff Kër Massar bokk na rek bokk nañu ci ñu tudd tey jile fukk ak benn ñoo wér ci bis bi fukk ak ñeenti cas grave la Sénégal am euh, bilan bi nag jàppale ni ñeenti junni la ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett euh, ci cas ba ñu fi tàmbalee ba tey ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo jot a wér ñeent fukk ak juróom-ñeent ñàkk ci seen euh, bakkan lu toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom la ñuy faj jamono ji jàngoro ji nag gis nañu ne ñu bari dañ leen ci dañ leen ci ci daan joxañ ndax dañu ko amee léeg-léeg sax am ñoo xamante ne dañuy bëgguñu ñëw kër docteur du ñu ñëw waa ministère nag daañu yegg seen kër di leen di génne loolu ñu ne bokkul rek ci anam boo xamante ni yu ñu rafetlu la mbaa bokk sax booy xool amul ay jéego yu tax ñuy wax moo tax tey nag ñu ne ci wàll woowu faw ñu soppi doxalin ci kaw ñu dugal askan wi ci mbir moomee dañu ci ànd ak bët bi nga xam ne askan bi moom la ñuy xoolee ñenn ñi nga xam ne dañoo am lii di coronavirus loolu nag day indi jafe-jafe ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy def ngir jëlee fi mbas mi suñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci wàllu wér yaram ñuy artu ci danger yi nga xam ne bedd xonte boobu mun na kaa jur. jafe-jafe yi mooy lan ku am feebar bi ragal nga ñu boddi la doo signalé wu doo dem hôpital ah mën nga évoluer wu ci cas bu grave sa kër ñàkk sa bakkan wàll aussi mën nga wàlle donc gis nga wàll boobu mën na yokk feebar bi. bodd xante boobu li ëpp ci li ko indi mooy doxalinu ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wér-gi-yaram noonu la ñu defoon socio anthropologue bi nag génne ay manquement yu bëri ci méthode yi nga xam ne moom lañu ñu utiliser. maanaam feebar bi dañ ko présenté ci benn fànn boo xam ne dafa garaaw a garaaw bi nga xam ne nit ñi dañuy saalit en tout cas ci njëlbeen bi ni ñu doon traité ñi am jàngoro bi wala ñoo xam ne xalaat nañu ragal nañ ne am nañ jàngoro bi wala ñoo xam ne feebar nañ ni ñu leen doon traité ànduloon ak suturu ñu wàccee gendarme yi fii wala policiers yeeg yooyu encadré borom borom combinaison yi ñu mel ni ay ay ay ci beneen planète lañ jógee loolu dafay tax nit ñi gën a tiit te bu ñu tiitee rek dinañ développé dinañ développé stigma. ministère bu yor wàllu wér-gi-yaram bi xam li nu mel tax mu bëgg a coppi doxalin fexe ba xeex lii di cas communautaire yi. da nga war a toog nga laaj communauté bi ñoom seen bopp naka la ñuy gisee mbir mi ak naka lañ ci xeexee maanaam lu ñuy wax si suñu suñu jargon bi co-construction maanaam ngeen tabaxandoo. ah tabaxandoo naka la ngeen di xeexee xeexee euh, stigmatisation bi. ci gox goxaan moo tax ñi tegoon lu ñu naan ay comité locaux ñooñu seen liggéey mooy lan dañ leen wax ni danañ ñuy dimbali koñ ba boo ngeen gisee ku amee feebar bi ngeen mën a ko eh, signaler ñu mën koo jël en charge ku ngeen xam ni suspect nañ ko aussi ñu signaler ko ñu mën koo jël en charge leneen li ñu leen gën a sas mooy bodd bi ci koñ bi ngeen waxtaan ak waa koñ bi ñi xam lan mooy feebar bi pour ñu bañ a boddi kenn ci biir askan gi. samedi bi weesu professeur Moussa Seydi mu ngi dem xamle boddi xante boobu tax na ñu bëri ci ay cas grave dañuy bañ ñëw ca kër docteur yi boddi xante bi nu mel sax bàyyiwul ñii di jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo dem seen bërëbu jàngalekaay yi te naam sax cours yi fi mu ne dañ koo dandal ba jëmmi jamono. ñu wax ci leneen muy bëccëg bi ñu jagleel nag euh, euh, géej euh, ci àdduna wërngal këpp tey lañu ko màggal yem ak juróom-ñetti fan ci weeru juin ca diwaanu ndar moom gis nañu ni ñi fare nag ci wàlluk napp ga acteurs yi ak mboolem ñu yëngu ci fànn woowu nag ñoom amal nañu rek ab dajaloo dajaloo bi nag du caagante ne dañu sàmmoontewul ak li ñu wax muy dàndante googu def nañu ko teg ci nag sol ay masque lañu ñu yëkkati ci kàddu di ñaxtu bokk na ci nee géej gi ak ni ñu koy caxat caxatee ay bateau di bàyyeekoo ca bitim réew ñëw di napp suñuy jën di yóbbu Ousseynou Diop la ñu fay fekk ji. bés bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu océan ci juróom-ñetti fan ci juin bi lañ koy amal. lu jëm ci wàllu célébration boobe nag li ko tax a jóg bokk na ci nan na ñu gën a fexe ba océan yi li nga xamante ni moo fay meññantal ñu mën ko protéger. di wàllu ndar géej ñiy yëngu jëm ci wàllu napp ñoom ñu ngay gën a ñaan ñi nga xamante ñooy kilifa yi mën a protéger lii océan bi ndaxte li ñu gis mooy bato yi nga xamante ni ñooy jóge ci bitim réew di ñëw di nappe file ay jafe-jafe yu mag lay leen di indil. parce que ñu amuñ lu dul géej gi parce que géej gi mooy suñu ressource naturelle ñëpp si la ñu bokk ku dëkk mi si la bokk si la yaakaar ak ku dëkk Kolda ku mu mën a doon kon amuñu droit yàq ka wa surtout ay étranger ñëw. bëgg yàq suñu géej si loo xamante ni ñenn ñi ni ñuy dugg illégal lay doon ñenn ñi dañuy nekk ku mel ne ku man mooy ñëw mbubbuyoo ak ñoom wutal leen tur ci Sénégal ñuy napp te fekk waruñu fi napp. ñoom sax nee nañu léegi océan yi liñ ci gis mooy ay jafe-jafe yu mag bokk na ci jën bi na mu manqué. ñu xaw a jaaxle ndax li nga xamante ni moo doon jën bi suba suñu yeewoo day gën a wàññeeku donc ñun war nañu poser wu question lan moo waral wàññeeku bi soit s'il le faut repos biologique ou bien ñu ñaan ñu dugalal ñu fi ay récifs parce que soxla nañ ko mais yooyu tey jii amaguñu yooyu ñu tollu ci benn diggante boo xam ne muy bi bi nga xamante ne moo dal suñu kaw gaal gi teer du mën a yebbi jën bi daf koy fanaanal nappkat yi nag ci bis bi nga xamante ni moom lañu jagle lépp lu jëm ci wàllu océan daal nañuy xamle ni am na solo lool ci dunduk doomu aadama yi rawatina njaboot yi nga xamante ni ñoo nekk ci génn ndar bu nga dox si géej gi sax ba gis surveillance buy surveiller bot bot dara sax doo ko gis te loolu jaaduwul te ñun géej rek la ñu am si la ñuy yëngu à part sax te géej amul leneen lu ñuy def moo tax géej gi jaral nu lu ne ñoom nag ci seen ndaje bu ni mel dañu ay masque masque yooyu nag li koy firndeel mooy lépp lu jëm ci wàllu licence de pêche yoo xamante ni ay bateau yu jóge ca bitim réew la ñu leen koy jox ñu ñëw ci réew mi di napp loolee nag ñu daal koy mën a dakkal Ousseynou Diop ñooñee ay jën la ñuy jooy ñii nag ay ordinateur la ñu wax ngir seeni i ñooñ yu nekk ci euh, diwaan yi muy étudiants yi fare euh, ci daara ju kawe ji ñu duppee euh, Cheikh Anta Diop ñu ne bu ñu sañoon seenub jëwriñ daal dana fexe ba daara yu kawe yi nekk ci diwaan yi ñu fexe ba seen i ñooñ jot ci ordinateur yi su ko defee programme bi mën a yegg ba foofee lu ko moy nag daanu yëngu-yëngal wax ba ñëpp dégg leen Mohamed Samba bëri ci ñoom amuñu jumtukaay yu xarale yii di internet ba tax na ñu mun di jàng toog seen kër nekk na loo xamante ne si jamono ci yii lay étudiant fas yéene wuñ koo amal la. suñ ministre de tutelle li ñu koy reproché Cheikh Amaran mooy que dañuy xëy gis ko mu def sortie ne dañuy proposer des cours en ligne te ñun ñëpp ñu xam ne contexte actuel bi ñu nekk nii permettre ñu étudiants yi def ñoom ñëpp cours de en ligne ci loolu nag ñun ñu ne affaire bi jaaxal ñu torop tamit connaissant aussi la situation actuelle ci suñu réew on espérait avoir yeneen i format yoo xam ne moom la ñuy proposer que de faire des cours en ligne. bu ñu sukkandikoo ci njiitu amicale yu université Cheikh Anta Diop ñoom étudiants yi nag noppi nañu ngir delluwaat si amphithéâtre yi bu fekkee ni jël nañ si matuwaay wóor. yor nañ yeneen proposition yoo xam ne buñ ko adopté dina permettre étudiants yi fañ nekk ñuy def seeni i cours di réviser ba yàlla suñu borom suturaa ñu lépp jeex buñ dellu si waatee ñu def li nga xam ne mënut a ñàkk muy TP ak TD ñu def ko en présentiel ak des résumés de cours étudiants yi li ñu doon lire rek am na incompréhension boo xam day day am. kuréelu étudiants yi nekk ci daara ju kawe ji di Cheikh Anta Diop ñoom nag ñu ngi woo seen jëwrin ci ñu waxtaan waaye ñoom ndongo yi nag ñu ngi xam ne ni bu fekkee ni defuñu ci dara. daa daañu amal benn doxu ñaxtu. ministre de tutelle bi encore ñoo ngi koy woo la raison maintenant bu ko deful l'opinion publique moo ngi ñuy déglu l'opinion internationale moo ngi ñuy dégg transport bi tijji nañ ko suñu mbokk étudiants yi ñoo ngi ñuy dégg. nañu woote ñëpp wuy si ñu ñu mën a xeex bi nag ba fu mu yem. fii ak ñuy nege ni xalaat yi nga xamante ne si ñoom ndongo yi jébbal nañ ko ministère de l' enseignement supérieur université bi ci wàllu boppam. ci biir jamono mu ngi gën di wéet. mu ngoog ñu wax nag ci wàllu dem bi ak dikk bi nga xamante ni kon dooraat dooraat na chauffeur yi nag fi mu ne euh, tàmbali rek euh, di wayaase ci euh, diwaan yi waaye ñu ni tey nag bu ñu sañoon dinañ jote rek ci wàllu assurance ndax wóorul dara ngay dawal tooy yoro assurance moo waral ñu bari sax ñu ngay wutali ci compagnie d'assurance yi waaye jafe na ngir ñu jote rek ci kayit boobu ndax jamonoy mbas mii ñu ne Abi Faye ak moo di Diop. ci diwaanu buntu Pikine fii oto yi ñu ngi dem ci anam ba mu leen neexee dem dëkk ak dëkk gannaaw ba nga xamante ne assouplissement am na ci wàllum transport interurbain bi ñenn ci chauffeur yi ñoom ci seen boppam jot ngir rek ñu dem yeesalaat lii di seen assurance yi. assurance bi cinquante mille la bu dee ñun car rapide yi. waaw xel mu dal la kay parce que instant bi fi ñu toll nii gannaaw may na ñi ñi yem nombre de place ah kooku assurance bi kooku. pees yi normal mooy yoon. boog gisuma fi kuy kuy kuy sooxaale assurance quoi ñun moom sax assurance moom respecté nañ ko waaw dañ koy dagg nice moom waaw oto yëpp koy dagg fii lool moom assuré naa ko moom. assurance yooyu ñoom xalaatuñu benn yoon dawal oto te yoruñu ko benn yoon. oto bu ma xoolee amul licence sax du ko dawal oto day am licence am assurance am carte lépp juuti ma dogay yéeg parce que assurance bi moo may gaaroon liggéeyul xaalis bi mais tamit gars ñoom xamara ñemewuñ loolu quoi ñemewuñ daw sans assurance gars yi moom lu métti métti moom jaayante assurance bi xama nga ko quoi waaw ndax assurance mooy lépp quoi dawal oto sans assurance tamit yaakaar na wóorul. lii la tax na itam compagnie d' assurance yi am na anam ba ñuy doxalee ak ñoom ndax leer na leen ne bile mbir ab délit pénal la. yëngatu boobu tax na tey mu indi benn euh, jafe-jafe si mbirum seen wutum assurance si ñun. pour mbiru renouveler waat jëlaat assurance bu leen di couvrir. souvent dañ si jànkonte ay problème parce que euh, ba mbas bi liñ ko waxee amee donc ñu ci bëri bon poos yi boo xoolee bënn na donc te bu ñu waree redémarrer donc assurance lu ñu war a dagg la obligation la donc ñàkk kaa donc loolu euh, sa tëjum kaso da cee xaj. bañ ñu jàppaleen waral na itam ñoom ci seen bopp doon na loo xamante nit lu ñu gën a bëgg la waaye tamit lu ñu gën a fonk la ci seen wàllu dem ak dikk ak seen oto yi. wàllum assurance doon na loo xam ne lu am solo la ñoom tamit nee nañ lu ñu jox gëdd la tax na itam dem beeg dikk bi ci ñoom dana gën a yemb. ñu koy jaajëfal bu baax Habib Faye àndoon ceeg euh, Modou Diop mbokk yi ni sant nañu leen gërëm leen yéen ñi fare woon euh, ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Aram Touré ma delloo la lenge yi. Euh,